mbokk yi asalaamaaleykum euh, ñu ngi am mbégte dellusiwaat ci seen émission démb ak tay ni ngeen ko déggee nag ci annonce bi xam ngeen ne tiis dafa dal ci kaw Sénégal gépp rawatina ak taskatu xibaar yi euh, ci ayubés bi ñu weesu muy génnuk àdduna Mame Less Camara taskatu xibaar bu kenn dootul présenté euh, muy nag nit ku amoon solo lool ci métier mi mais amoon solo ci taxawaayam ci réew mi doon itam royukaay démb ak tay nag ni ngeen ko xamee jubluwaay bi bokk na ci fësal yenn xew-xew ci réew mi waaye itam Euh, fësal ak fàttali jaar-jaaru ñu mel ni maam lees Camara tey euh, ñu di ko def di ko ci delloo wàlle njukkal di yeesalaat sunu njaal tey ñaan yàlla jéggal ko yërëm ko xare ko àjjana ñuy dalal nag kenn ci euh, ay àndandoom mm, ku ko xam peut-être jëflanteeg moom lu baree bari mën ñoo itam wax ci moom lu bari muy beneen doyen pap sambakan ñu gën ko xam ci PSK ñu ngi lay nuyu doyen Pape Samba Kane di am mbégte dalal la ci démb ak tey di la jaal aussi maam lees Camara ni ma ko waxee léegi jërëjëf euh, Fatou maa ngi lay fay euh, di la di la sargal di nuyu auditeurs yi di nuyu sénégalais yi di nangu sa njaal te di la ko delloo tamit ñu euh, sigil liñ te di am à la fois maanaam mbégte ak mm. nja njaqare yi wax ci ci ci Mame ndax lan. njaqare ndax da ngay wax ci koo xam ni wax ci lu mat. Mm. wax ci lu mat ku ko xamul xam la ngay wax mm. lépp mm. dafa jafe wax lépp ci Mame Less ci émission dafa jafe mm-hmm. defe naa ni ku jëloon téere sax bëgg bind ci moom dina am yooyu bàyyi sinon di nga def la nga xam ni xëy na mu mu jéggi dayo mm-hmm. loolooy loolooy njaxare li aussi est-ce que danaa toll man sama façon yi waxin danaa toll ci euh, niveau maanaam yëkkatiku ba nga xam ni dina tax nit ñi xam li may bëgg wax ci domaine yi ma bëgg yi ma mën a wax ci moom moo tax damay sax am lu may fànq. Hmm. maam les sama xarit la. Hmm. métier bee tax ñu daje. Hmm. waaye dañoo euh, euh, ci daje boobu. xaritoo def ce juddu euh, ba mëdd maanaam métier mi. parce que liggéey nañu ensemble waaye loolu dinañ ci dellu si. li tax ma wax li ma wax nii léegi mooy que sa xarit mun naa Euh, wax ci mbaaxam ak yooyu. mun naa ko teg fële parce que li ma daan wax ci moom ba muy dund. Mm-hmm. loolu laa nar a wax ci moom ba mu génnee àddina. Mm-hmm. Mame Less métier mo tax ñu daje. fu ngeen a daje Euh, fu njëkk a daje est-ce que dinaa ci am fàttaliku bu leer a leer a leer a leer. loolu dina ma jaaxal. waaw parce que dafay yàgg parce que même ay fàttaliku yu ñëw ci man ci ay conférences yu ñu defandoo ñu ko ami animé woo man ak moom mm. ay séminaires yu ñu participer en général bu daan dem ñoo daan ànd sax souvent. Mm. ànd nañ ba tey ci ay séminaire barki dem rek sama xale taximan bi may doxal sama soxla yu bari bi may njëkk woo mm. di ma jaale Mame daf ma doon fàttali ne mm. moo ñu yóbbu woon euh, benn euh, séminaire mm. euh, dernièrement à indiwaat ñu léegi xarito bi day tax ma fegg waxi ci nit ki parce que nit ki moom dama koy résumer rek ci ne nit ku baax la woon nit ku baax la woon waaye professionnel bi nga xam ne nag moom mooy moom dama daje ak moom ci ay terrain wu liggéey bés ma sëmb ma sumb liggéey bu nga xam ne pour man ci liggéey yi gën a amoon solo yi ma mës a sumb la mm. di doon ci dajale ay nit yu xarañ mm. ma jël ko mu nekk sama rédacteur en chef moom nitu rajo la mm. spécialité rajo jàng rajo di ko jàngale mm-hmm. mais eh, ñi nga xam ni seen spécialité bind la yëpp ñi def presse écrite wax dëgg yàlla ñi ko ci mën mën ci liggéey bi mm-hmm. bariwul waaye moom yemuloon rek ci nekk journaliste bu bu xarañ xam métier mën ko Mame Less dañuy fàtte ne philosophe la mhm. Mame Less euh, professeur Mame Moussé Diagne ci philosophie gën a siiw ci réew mi mhm. jàngal na ko mënoo waxtaan ak Mame Moussé te turu Mame Less ci gémmiñam mm. di fàttali étudiant bu brillant bi mu nekkoon mm. donc dafa métier bi daf dafa lalu ci kaw culture bu mu amoon bu ko teg mm-hmm. ba pare nga nga ci loolu Mame nekk ni koo xam ni dafa am euh, un sens moral très élevé mm. loolu tax ñi mu jàngal ñëpp xàmmee ko ci insistance am mm-hmm. sur les questions d'éthique mm-hmm. et de déontologie maanaam euh, xarañ ci d'accord waaye euh, euh, maan maandu. Mm-hmm. ak njub li nga xam ni journaliste. Mm-hmm. ci la war a wéer liggéeyam. Mm-hmm. daf ko ci def ko daf ci sori ba di ko si njàngaleem def ko ci daf ci insister daf ci feeñ dañ ko daan woo fu ne muy def ay conférence mm. ci thème boobu éthique déontologie mm. ah. dirigé na fi syndicat bi donc dirigé na fi euh, bokk na correct maanaam le tribunal des pairs di ci def lu rafet nekk ni ku mesuré nag parce que nit ki tam day xaw a jafe hmm. éviter waaye professionnel bi laay gën a insister rek euh, mës nañu defandoo benn conférence euh, dans les au milieu des années quatre vingt peut être wala vers fin quatre vingt boobu tam ak Kafar libéré hmm. ñu koy def sur maanaam les relations maanaam entre les hommes de puissance les hommes de pouvoir mun mm. na nekk pouvoir économique mm. wala politique wala traditionnel même mm. ou religieux ak journalistes yi journaliste ban façon relation la war a entretenir ak ñooña nga xam ne di dajeek ñoom di wax ak ñoom da lay yokk rek ci sa métier parce que da lay yokk ñooñu ñoo rek information yi ñooñu ñoo la mën a permettre maanaam euh, nga xam li xew ubbi sa bët ci li mm-hmm. xam ne xew na ñëpp di ci wax mm-hmm. la ka lal xamoo ko mm-hmm. ku ci am sa estime ba sa euh, euh, sa sa respect ba mu nangu taw toog waxak ak yow bu événement amee nga dem taw ak moom génn boo bindee ñëpp xam ne yow am na loo am lu ñeneen ñi amul donc di wax ak ñoom di saafonteeg ñoom di defanteeg ñoom dafa nekk li nga xam ne sax presque nécessité la waaye maa ngi doon wax léegi wax yi euh, njub ak rafetal bi nekk ci métier maanaam déontologie mm-hmm. bi ak mm-hmm. bi bi nga xam ni bu fa dañee moom la fay des dootul bëri mm-hmm. naka la nit ñi mën a concilier moo doon ko temu conférence bi suñu relation yoo xam dafa nécessaire ak kii ñu def conférence bi nag wax dëgg yàlla fële euh, maison de la culture Douta Seck la woon euh, suñu morom conférence am na ñu fi nekk ci ni ñu ngi may dégg dinañ ko fàttaliku am na ñu fi ñu présent woon ñu bëri ci suñu moromu journaliste yi mm. ñu dem man moom ñoo doon animé conférence bi je crois que moom man ma doon modérateur moom ma doon animateur bi mm. principal ñu dem ba fin bi ma xaw ko cuq nag tooñ ko mm. ci. naka ñun journaliste sénégalais hmm. dëkk Sénégal hmm. di feey ci biir benn ay ay ay relation sociale hmm. benn sociologie boo xam benn organisation sociologique boo xam ni dafa am ay contraintes yu ñu teg suñu kaw maanaam suñu ndoxalinu Sénégal yi ñu xam ni am na ci yoo xam ni day lay day permettre maanaam day tax nit koo xam ni xëy na jotewu leen lu bari. wala jote ngeen ko waaye jotewu leen loola mu am occasion def xaalis ci sa teg xaalis si sa loxo. Mm. def xaalis ci sa poche maanaam ngénte. Mm-hmm. dëj mm-hmm. takk. Mm-hmm. yooyu yëpp waaye Mame Less dafa amoon benn <laughs> benn façon bu muy xalaatee bu nit ñi dul xalaatee. Mm. d'ailleurs euh, man dama am lu ma def ci sama liggéey bi mi ngi mi ngi génn benn livre d'ailleurs moom moo ko préfacé bu njëkk bi. Mm. maa ngi génn deuxième bi portrait mi ngi si maa ngi ko titré oblique. par obligation. Mm. maam lay Camara oblige par obligation maanaam li nga xam dafa dëng mm. waaye li ko dëngaloo devoir la mm. maanaam waree fa moo tax mu war a moo waree moo tax xalaatam lunk noonu ah oblige par obligation moom bopp ma xaw ko caxee noonu nag man ko léegi loolu loolu nuñ koy gérer mm-hmm. comme réponse bi nag conférence ci français di ko wax ci français ñu jëm ko ah. tekki maak yow mm-hmm. daf ma ne on peut les rencontrer mm-hmm. nous pouvons les rencontrer mais nous devons éviter de les fréquenter Mm. gis nga wax ji de. waaw waroo sekk moom yenn yi. koy dajel te koo fréquenté wul nag doo leen jotee muy ñëw sa sa dëjëg sa ngénteeg sa takk su fekkee da ngay koy dajeeg moom rek parce que mm. soxla nga ko dem wax ak moom mm. mu wuni la kii la xam nga am na difficulté baa ngi ci ba léegi waaye moom noonu la ko kiiwee dafa bari woon nag formule yu mel noonu xam man lay wax ne moom philosophe la mm-hmm. te wax dëgg yàlla il avait une maîtrise de la langue mm-hmm. que muy wax olof que muy wax français li muy wax day leer nañ ah mais dafa moon formul yooyu di boole ñaari yëf yi nga xam ne da ngay foog ni yii mm-hmm. mënoo leen boole wala di texale ñaari yëf yoo xam ne mënoo leen texale ci préface bi mu def ci livre bi may wax nii ci portrait yi mm-hmm. te dinaa ko mi ngi génn fan yi mm-hmm. ça n'a rien à voir deewam bi parce que man ak éditeur mu ngi ci ma nga ma koy joxe naa pré préface bi euh, Abdoulaye Diallo euh, bu yàgg xëy na livre bi na génn semaine yi dafa def daf ciy bind ne man li may bind dafa ànd ak li ñuy wax férocité mm. maanaam te musul sans jamais être méchant mm. c'est féroce maanaam sans jamais être méchant man xamul loolu nu mu koy traduire ci wolof ah <laughs> waaw dëgër na mais soxorul li muy wax dëgër na mais du wax ju soxor metti na mm, mais metti na mm-hmm. mais du soxor Pape Samba li mu lay wax yow mi mm-hmm. na mm-hmm. ñaw na lool mais du du du soxor dafa amoon ay formules yu mel yooyu euh, euh, formation euh, kii philosophe am mm-hmm. ak aussi nit ku bëgg a téere mm-hmm. ay livre moo ko boo demoon këram ci bibliothèque am bi nekk ci ruq bu ci fond bu ci maison bi mm. fa lay yendu. Mm. boo ñëwee fekk faay livre su maa ngi nii tiim sama bos ma mu jógee ci taskatu xibaar nee na Mame Less mm. dafa a mu dugal ko këram visito loo ko ko won li kër gi rëy rëy li muy yanj yanj gisu fa livre. gisu fa téere gëm naa loolu fa naa <laughs> gis nga livre mm-hmm. euh, bi am na benn livre bi nga xam ni ki ko mm-hmm. bind xam naa ne xam ñi ko xam tey jii ci xale Sénégal yi sax bariwul mm-hmm. Abdou Anta la tudd ci mm-hmm. suñu bindkat yi gënoon xereñ la benn benn nouvelle bu mu bind bu tudd Maal mu ciy raconté Maal xam nga nouvelle day gàtt waaye dafay fort dafay am densité kooku Euh, conseil culturel lu Senghor la woon di ko hmm. bindal ay discours xam nga ni Senghor ko bindal ay discours maîtriser nga affaire bi ah, nit yu mel noonu man livre kooku mosoon naa ko lire ba ma nekkee gone waaye ba ma ko hmm. soxlawaatee di ko wër ci àddina di ko wër ci àddina di ko wër ci àddina ba mosuma ko gis hmm. ci Mame Less laa ko fekk ci moom laa ko jëlee mi ngeeg man ba toujours nekk ak man ba fii hmm. ba fi mu ne nii mi ngi nii sama sama livre bu ndaw laa mi ngi sama hmm. bibliothèque dañ daan waxtaan ci livre hmm. ñuy wax affaire euh, jël jël maanaam sàcc <laughs> mu ne livre moom ku koy àbb di ko delloo da ngaa dof <laughs> kon Badou moom daawul delloo livre. saa ma laajoon livre bi nag laa ko daan fàttali. ah yee yooyu itam nangu woo <laughs> parce que saa ma ko laajaan lay wala non bii ba naa la këndil daf may fàttali waxam boobu mm. donc pour man wan ma ne comprendre na mm. ni ma téye ni ma téye mm. téeréem téere téeréem boobu téeréem boobu waaw te koo xalaat ci bindkat yi nekk ci àddina bi ñuy eh, hispanique yeeg anglophone yeeg yëpp ñu traduire leen en français jàng na leen da nga naan euh, les auteurs euh, connus laa ku mu dégg ne bind na loo am fula da koy jàng waaw waaw wax dëgg yàlla man wax ma moom la samay a jafe. Mhm. liggéey nañ ci démocratie man moom Boubacar Boris Diop ma euh, Babacar Justin Ndiaye Moustapha mhm. Sarr Diagne mhm. dama ne woon damay dajale ay nit yoo xam ne dañoo xereñ. ma dem wuti ñoo nga xam ne ci sama xalu bopp man ñoom ñoo ma gën a xereñ. ñu wër ma ñu liggéey liggéey boobu defe na ni loolu. lu nit ñi tamit di di war def la. parce que booy liggéey ak ñoo xam dañ lay tirer vers le haut ni ko tubaab di waxee. dañ lay xëcc ngay jëm kaw. Mhm. defe naa ni moo gën ngay choisir ñoo xam ne. Mhm. Euh, xëy na loo leen jàngul loo leen jàngulul duñ la ko mhm. bu même si fekkee yàlla may na ma ma daje ak ay xale yoo xam ne amuñu expérience ma tàggat leen ba ñu euh, am àgg foo xam ni euh, su ma leen xoolee dama ciy kontaan. mais man dama yàgg su may liggéey te loolu tamit ci recommandation wu les yi la bokkoon journal boobu ma lay wax. moom moo doon rédacteur en chef bi donc équipe boobu ma formé autour de moi. déedéet euh, démocratie au ah, pluriel la tudd c'était un journal de prospective euh, voilà de prospective politique mm. qui était destiné à l'Afrique distribué nañ ko ba Maroc mm. Mali Côte d'Ivoire université américaine yu bari euh, abonné woon nañ ci moom moo doon rédacteur en chef bi benn moment ci bi may lancé journal bi moom moo ci jàpp mm. sama livre yi ma bind ay préface ñaar mi ngi si ñetteel baa may waaj a génne mm-hmm. wax naa la sama xarit la loolu moo justifié loolu mm. mais du loolu kese woolu xam-xamam wóolu gis-gisam mm. ak wóolu bienveillance am parce que dafa am benn bindkat bu mag du mm-hmm. ma faral wax tudd dama koy tudd dina reetaan loolu sax ñi may waxtaanal lu bëri mooy Charles Baudelaire mm. dafa ne la bienveillance à bonne vue moo tax moo tax Mamles gis-gisam ñaw ko dafa ànd ak bienveillance même mm-hmm. suy critiquer liggéey mm-hmm. suy critiquer lenn sax da ngay gis ne daf ci ànd ak li tubaab di wax bienveillance maanaam euh, la euh, la biir la biir waaw waaw même buy critique buy buy buy buy ŋàññ liggéey bu koy xarab sax la biir la si àndal mm-hmm. waaw moom noonu la meloon moo tax mu sax mu mën a boole yooyu ma la doon wax sànq. Mm. ay férocité sans être méchant. Mm-hmm. xam nga ak yooyu ak euh, euh, rencontrer sans fréquenter. Mm-hmm. dafa am moom dafa dafa équilibré moom si ah. boppam ni ku équilibré la mm, woon. lu ne xam na fi mu war waaw euh, kay dafa nekk nit bu diggu doomu daal mm, ci mm, mm. ay sentiment am ci ay xalaatam ci ay idéologie bu lay raconté papaam communiste loon bokkoon pays clandestin bu lay raconté mu nekk xale di ñu mu doon épier réunion yi ak yooyu benn sens de l'humour ni ko tubaab yi maanaam am xorom saf xorom nag ci sobriété ba boo gisee nii mun kii euh, sol yu simple noppi bariwul wax mais gis da ngay ree bay la mu ci suuf hmm. bu bu ko neexee hmm. te nag ci ci boppam ci ay pas communiste yi fii hmm. ci politiciens yi ci ñun ñëpp wax dëgg yàlla li ma ñu ñëpp a jëwante mais mus li ma dégg maam les muy jëw les gens de la confrère yi bariwul journalisme journaliste du ci wax dara lu dul lu rafet xale yi même buy critique comme ni ma la seen liggéey laa biir la defee ba nga xam ni doo gis ne lii jëw la parce que mun na leen ko wax ci classe yi di jàngale mm-hmm. mën na leen ko wax ci rédaction yi muy dirigé jàkkaarloo ñoom. très bien macha allah sama wax ji bari na. non bari na lu tëng ngëm. Mm, déedéet non non li nga wax am na solo leer na te itam foofa. dama ciy mm-hmm. indi seede boo xam ne li ñu ko dégg dafa bari. mooy ku mm-hmm. baaxoon la ku yewe noonu la ci xam-xamam. maanaam mu daan jàngale itam foofa da daan waaw da daan dimbali ñu bari daal ci wàllu ci wàllu xam-xamam séddoo koog ñëpp nayu ci woon. loolu dëgg dafa yéwén ci loolu ci mm-hmm. xam-xamam ba pare te siisul tamit ci keneen ku mu yaakaar na yow am na loo mën a wax loo mën a joxe maanaam ba te am na ñaar yu ñaar à deux def ay discussion ay conférence mm-hmm. mais classe yi muy jàngale CESTI mm-hmm. man mi di wax yow jàngewuma CESTI aw ma formation wu jàngalekat yàlla def na nag may jàngale ay ci yenn école yu ndaw yi ak yu mag yi ba temps moom Mame moom mooma ñemee loolu Hmm. troisième année yu mu yoree yu bëri. Hmm. woo na ma ma ñëw wax ak ñoom. d'accord parce que moom métier bi daf ko cloisonné wul moom rajo lay def ak ñoom waaye chaque fois troisième année pour kii dafay daf leen di confronter du man rek la koy defal. Ah. moom Mamadou Ndiaye wax na ma ko ba kii dem rappelé na ma ko hmm. universitaire yeeg yeneen confrères yi day woo ay nit ñi nga xam ne yaakaar na ne ñii am nañ lu ñu lu ñu lu ñu ñëpp. loo xam bu ko ubbee seen loxo jox ko xale yi mu jëriñ leen ci seen njàng mi mu woo leen ñu wax ak ñoom. loolu def na ko ba tàyyi mm. ak ak ak man mii mm. te damay daje ak étudiant mi damay rus sax mam les euh, mi ngi def témoignage yu baax si yow mm. sa téere tel bi nga bind a na ci lii sa téere tel bi nga bind a na ci lële mm. ñu wax recommandé na ñu ñu liir ko ak yooyu yooyu ñu bëree bëri ñu ngi may dégg ñoom ami waan mm. ñoom ami waan ñoom Mamadou Diallo étudiant am yi kam na koo xam ne sax dernièrement si politicien moo doon génne liggéey naag man lu bëree bëree bëri ne ma maam les moo ne boo demee liggéey ak kooku di nga jàng comme da nga soo demee jàng liggéey si moom yooyu xam nga mbaax passé dem ma xam ni kii sax yaramam neexul mm. ñu woo ko pour mu wax ci euh, métier bi wala ci réew mi mm. mu ñëw taxaw wax ci wax ju am fulla ku ñu ñi génne téere ñoo xam ne sax xëy na miinu leen lool mm. wóolu ko ne kaay defal ma présentation bi ak liir nu mu méttee mu liir ko ñoo def ci note bu am solo waaw vraiment euh, loolu moom dëgg la ci partager xam-xamam moom yéwén ci euh, loolu kenn du ko xam na loo xam nag kenn mënu ko bañ a wax mooy ni mu dëddoo àdduna waaw loolu ñëpp remarqué woon nañ ci ay yi nga xam ni yooyu daf ñooy daf lay boo deful ndànk daf lay yomb boo nekkee journaliste. Mm-hmm. dinañ la invité restaurant yoo xam ne yow sa xaalis bu doon sa salaire doo fa lekk. jamais dinañ la dugal ci avion yoo xam ne bu doon sa xaalis doo fa dugg jamais mm-hmm. wala ci ay réew yoo xam ne bu doon sa man-man kese ak sa alal doo fa dem jamais. Mm-hmm. du dëgg waaye. Euh, euh, lu ñu lay tàllal rek nga ne ko sifit hmm. lu la jox nga jël hmm. euh, dafa nekk li nga xam ne xëy na dañ cee war tuuti maandu on peut les rencontrer ne pas les boobu yëpp ci hmm. foofu lool la bëgg a wax c'est-à-dire da ngay soo gisee ne lii boo ko defee mën na la contraindre sax parce que xam nga li ma doon wax sànq ci ndaw ci ndawtal yeeg jaxal yi boo fi fréquenté nit ba ngeen xamante miinante ba nga ameel ko loolu mu amee la ko yow mm. nga am li ñu seen kër yëkkati loo xam ni dëgg-dëgg lañ fa joxe yëpp ci ndawtal moo ko ëpp. Mm-hmm. boo ko bañee seen waa kër ne danga ngaa baadoo la. Mm-hmm. dañuy di jaay seen affaire intellectuelle yi artistes yi loo xam ne dafay gaañ askan ko ñemee wax boo ko nangoo ëllëg nga ameel ko. Mm-hmm. bu woon li mu jógee àddina nii. te xëy na loolu ñu bari xamuñu ko. dinaa leen fex loo xam ne boo ko waxee Sénégal fii kenn du ko gëm. Mm. wala ci kaay kaay ma may la kaay ma jox la. Mm. waaw kaay ma lu day ni kër li may wax ki ko def xam na ko mi ngi degg dégg. Hmm? mu ne ko non li nga def doy na. ci maam les ko waaw. waaw loolu li may ñu xam dinañ xam li may wax. Hmm. li nga def doy na loolu loolu dafa am laajuma la ko. Hmm. waaw ñëw ma remercier la am mu continuer di macha allah eh, du ñëpp mun loolu nag. mais li ci tendre dina dimbali. nga bañ cee ëppal bañ a jël sa ñaari loxo. Mm-hmm. Euh, dugal ci ndab li. Mm-hmm. ndab li ñëpp bokk loolu am na solo alors <laughs> lan moo la gën a marqué ci parcours Mame Less Camara lan daal nga ci jàpp daal loo xam ni tey ndaw yi war nañ ko xam. Euh, maanaam jox gëddaam ak respect bi mu mérité. Mm-hmm. métier bi lii nga moom question bi nga ma posé ne mi ngi may delloo si li ma doon njëkk a wax ca njëlbeen ga hmm. ne dama am sax njàqare di wax parce que li ngay wax dafa mën a dafa naru ta mat hmm. parce que boo nee ñu respecté métier bi jox ko gëddaam hmm. dafa am lu mu mel dafa mel ni jigéen bu ëmb dafa am lu mu ëmb li nga xam ne moo ëpp li nga wax foofu dafa am ay comportement yu mu laaj ay jëfin yu mu laaj ay tënk sa bopp yu mu laaj di tiim ay livre di leen jàng loo dégg mu ne tëll bu ne dama na nga dem seeti fa mu dammee hmm. loo di dafa laaj benn comportement de tous les jours profession bi dafa nekk li nga xam ne on ne peut pas être un journaliste un temps un journaliste da ngay nekk journaliste tout le temps di jàng di di seet ñi la ëpp xam-xam di wax ñoom di vérifier sa information ba pare am courage parce que dafa laaj courage mm. moral mm. ba pare laaj courage physique mm-hmm. yi may wax ne yëpp mu ngi mel ni ci ci làmmiñam laa ko jëlee mm. dañ daan dañ daan nekk téléphone bu ñu gisantewul dañ daan nekk téléphone ay heure di wax ba di di jàmbat rek ne téléphone bi gudd na waaye kenn du raccroché mm. di jàmbat ñu naan ñëpp vraiment pas il faut qu'on se voit yi parce que mm. man tam mm. loolu yëpp ci affaire toujours lu am fulla xam mm-hmm. loolu tamit loolu lu mën a lu a mën a marqué nit ci Mame Less mm-hmm. c'est-à-dire il était waaw dinay waxtaan dinay fooy la de bonne humeur wax naa la fii ne dafa xoromu da ngay ree ba mm-hmm. tëdd ci suuf waaye du xoromu xumbal quoi c'est-à-dire day wax benn benn dafa am ay traits d'humour maanaam su doon dañu am culture bu buñ ko mën a comprendre hmm. damay wax il avait un humour un humour british maanaam anglais yi dañuy day dafa am ay sànni dafa am ay hmm. ay ay sa day sànni baat waaw day sànni baat hmm. day sànni baat boo xam ni nangi nga yow da ngay reeb suuf moom mu dem mel ni waxul dara xam nga dafa dafa amoon xorom soosu quoi léegi daal li ñu mën a téye ci nit ki mooy que nit baax la woon ci ci man a ak ci am amam ak ci leneen bëggoon na njabootam ba pare bëgg ku bëgg ku respecté ku ko respecté bëgg ku respecté njabootam mm. te taxutoon mu rëy loolu jaarewu ko ci rëy mi ngi ko jaare ci humilité bu mag mm. jox ku nekk cëram mm-hmm. waaw bëgg bu la joxee cër nga delloo ko ko loolu loolu lu normal la mais mais bi ñu mm. gisee Mame Less yàgg nañu ko dégg euh, bi mm-hmm. mais bi mu génnee àdduna li mu am ci hmm. ay seede mu jóge ci hmm. ay nit yu ñu foogul woon dafa yéem àddina euh, concrètement lan moo ko may maam Less président Macky la tuddee na ko CESTI d'ailleurs euh, keroog ca ba ñuy euh, def bésu premier mais bi alors lan moo may Mame Less lii mu am tey concrètement li ko may loolu mooy lii ñu wax lépp maak yow hmm. te matut hmm. ak nga teg ci li ngay dégg ci ay témoignages ci moom sës hmm. ci moom c'est facile à régler parce que nekk journaliste keroog euh, am na ku wax euh, ne euh, avec Mame Less le journalisme est mort je ne serai pas aussi catégorique avec la mort de Mame Less quand même une, certaine façon de faire la presse est morte quoi mm. une, un certain journalisme est parti Mame Less dafa doon inspiré nit ñi respect xam nga euh, dee dafa doy waar. Mm-hmm. Euh, nit bu deewee rek nit bu ordinaire rek boo xam ni defu fi dara sax. Mm-hmm. nit bu deewee rek. a nga lu tax yow soppoo ko lu ëpp la ko soppoon. dëgg la ndax xam waaw kay nit nit bu deewee rek sax yow sax koo xam ne da nit dama koy wax euh, ci ak mandute nag parce que xëy na mm. wax ji mën na doon na dëng tuuti deewu nit ku la jege dafay jox kenn nit keneen ki ko fekkee mauvaise conscience tout le temps pourquoi lui et pas moi lu tax moom mi muy dee mm. te man demu man gënuma ko xam nga mm. léegi nag euh, loolu yëpp dafay alimenter euh, sentiment de Euh, comment dire comment de se rattraper maanaam jéem a dabu li nga xam ne waroon nga ko defal li ñuy wax naan ay sa yaay bu génnee àddina loo ko mësoon mm-hmm. defal nga xeeb ko mm-hmm. sa papa bu génnee àddina loo ko mësoon defal nga xeeb ko mm-hmm. am na tamit si sa xarit di nga ko sentir tam ci sa xarit dina dem nga ne kii mënoon naa koo gën a bëgg kii mënoon naa koo gën a fréquenter loolu nag boo ko tegee nag loolu ñëpp kay am waaye nag nga teg ci li nga xam ne moo tax nga poser sa question bi Mame Less dafa dafa am lu kenn wala boo lu bari wala dafa am lu rëy waaw mais attends Abdou Diouf mos na ko wax ku def lu rëy am lu rëy. loolu dëgg la. dafa def lu rëy bu doon def euh, macha allah euh, Samba Boyou euh, dem bon nit ñi nag dañoo bari yërmande dinañ ko ñaanal wax ci moom li baax ci moom parce que ku nekk yaa ngi tere na lu baax ci yow ak li nga xam leneen la ñu bàyyi leneen li parce que loolu la ñu suñu mm. diine sant loolu décence ak morale mm. santaane bu mm. nit ki demee nga def éloge wax ci moom lu baax. loolu lañ santaane mais yem fa doo ci santir lii nga sentir ba tax ngay poser question bi lu mm. tax mu am lii lu tax mu am lii moom lu ko yàlla may la mm. mu daal di ko sàmm nag mm. parce que yàlla mën na laa may ba pare doo ko sàmm mu jéppi nangu ko waaw moom mu balaat moom balaat nit mu fonk cër bi dafa yàlla ko cëral mu fonk cër bi waaw moo tax ki répondre question yu mel nii comme bi ngi nii dafa xaw a jafe yàlla na yàlla daal may nit mhm. ah, mu mun a am lu mel ni lii mu am nii waaw nga dund ak nit ñi noo xam ni boo demee non seulement dinañ la jooy mhm. regretter la waaye dinañ la woy mhm. waaw alors Pape Samba Kane peut-être pour euh, jeexal lan nga dund ak maam lees lu particulier lu lay marqué à vie <laughs> yëf yëf dañoo bari euh. jëkkil ñu ci benn wala ñaar. yëf yëf yi dañoo xam ne maam maam les dañoo nekk moroom aussi ah. d'accord. dañoo nekk moroom dafa kilife dafa kilife rek. Mhm. ni mag noonu. Mhm. mais man maa ko màggee ab at. su ndaw nag. Ah mais maa ko màggee ak at su ndaw. mais dafa kilife wu rek ba toll noonu donc daan nañu tamit am ay ay waxtaan ay yu xóot yu ñuy fowee ci ci affaire li ñuy li ñuy wax rhétorique ak yooyu quoi. Mm. yooyu daal vraiment génn jàngal na ma xamal na ma lu bëree bëree bëri bëri bu buggee benn anecdote bu may mm. raconter. Mm. dafa may dafa may daal. parce que bu nekk daf dañoo dañoo bëree bëri nekk nañ Saint ànd nañ Saint-Louis seeti kii ànd ak njabootu euh, soxnaam si euh, soxna kii ne ànd nañu euh, ci biir dëkk bi ay séminaire yu bari bokk mm. nañ sax fanaan dañu am yu xam ne daal dëggantaan doon na nit koy def ay yëf yi nga xam ni mën nga ko fat am tey ñoo am ñoo xam ba mu noonu loolu leen gën a def moo wax la ba ñu fii mm. mu topp otom bi daaneel ko fii mbaa tooñ kii mbaa mu xeex fii mbaa mu kii nekkul nit kuy kuy dafa nekk nit ku diggu doomu xam nga wax naa la ko sànq dafa équilibré dafa tellement équilibré ëppalul ci mm-hmm. dara te en général yu mel nii da ngay mm-hmm. raconté anecdote boo boo retané boo mm-hmm. defee lii boo defee laa ak yooyu voilà am na te dafa sobre li tubaab di wax maanaam dafa maandu teey ba nga xam ni daal génne lan ne lii la moo ma gën a marqué ci moom euh, dina ma dina ma jafe waaye de leen de xam naa ko répété mooy dëddu bi mu dëddu woon te du euh, crispé wul nag du dëddu dëndu bu kii de dafa dëddu bu mu dëddu woon ay yëfi àddina quoi hmm. dëddu bu mu woon ay ay ay alal mm. ay maqaama mm. ay gis leen ma yooyu yooyu ci dawlo sama morom wax bu ma dégg man personnellement mu mu mu mu mu touché ma mooy bi mu fi jiitee ab rajo borom mhm. rajo ba toog ba mu yàgg mhm. attanatul personnel ba ni mhm. ko daal dama bëggoon nga xool ñan la ñu mun a wàññi dégg naa ne maam lees turam la njëkk a bind ca kaw <laughs> ne man ngay njëkk wàññi doog def ñeneen ñi ci suuf maa ah, la wax lii def naa maa xam naa ko déggee personnellement. lu ma lu ma lu ma xam naa ci dara boobu rajo bi. Mm. Eh, maa ngi maa ngi dëkkoon en ah, fait ci ginnaaw eh, fi mm. rajo bi nekkoon ci suuf mm. donc temps yooyu lu ñu gisante lu bari la man jaar bureau muy ñëw sama kër. maa ngi dëkkoon Maris loolu nga li ngay wax ni moom eh, xam naa ci lu bari mais. li doon wax sànq rek ne nit jox na ko lu rëy. mu loolu loolu moom pour bañ a Eh, moom soxlawul loolu. Mm. loolu tax wax waxuma ko mais daal. renonce àddina daal yitteelu ko woon mm. ci ci ci ci niveau boobu daal. Mm. wax dëgg yàlla niveau boobu. niveau boobu moom àddina yitteelu ko ci woon lool. xam naa ne da nga dañu raccroché nag nga dem ma toog naan wax mu ko li wax mu ko laa mooy li ma la wax sànq rek eh, kii eh, nu mu tuddati njàqare eh, ji mm-hmm. parce que doo mën a wax lépp ci ku ni ci ku mel li nga bëgg wax lépp doo ko wax mm-hmm. li nga wax tamit xëy na na nga ko bëggoon waxee doo ko doo ko nii mm-hmm. waxee waaye daal nañ jàpp ne on a perdu un grand homme euh, mérité na sesti mérité loolu mérité na ginnaawam ñu toog tirer ay euh, enseignement ci démarche am li mu defoon de ak ci lan la war a inspirer jeune génération bi ndax tam euh, euh, du lu ma lay xibaar tey xam nga ni métier mi mi ngi ci crise jafe-jafe yi bari na xëy na am na tey yu taskatu xibaar ñemee wax ñemee def Mame Niass musta traversé xelam loola itam foog naa ne génnuk àdduna maam lees bi war na den doon benn genre déclic pour am xëy na lu mu lu mu ñu dimbalee lu ko lu ko lu ko lu ko métti woon ngi woon noonu nag mm. lu ko métti lu ko métti loolu moom ci waxtaan yu mujj yi sama livre bi ma lay wax ne moom la njëkk a préfacé mm-hmm. mi ngi tudd les écrits de Dias les pages sombres de la presse maa ngi ko bind en 2006 mu jàppale ma trop si réflexion bi. Mm-hmm. bi ma ko paree mu daal di ko euh, kii euh, préfacé. Mm-hmm. donc boole ci loxoom séddoog man partagé ak man li ma ci wax. booba déjà 2006. maa doon nañu def attention presse bi mu ngi jëm au mur maanaam ñoo ngi jëm ci ñu ngay mbëkki hmm. mur hmm. buñ deful ndànk li nga wax nag tey nag defe naa ne mur bi agsi nañ ci quoi a donc euh, waaye nit du désespéré man dama nekk nit ku optimiste hmm. loolu tam maam les nekkoon na ko lool amoon moom dafa dafa rafetoon njort waaw moom pour moom problème yi dañ leen di régler waaw il faut en parler poser leen wax ci def ko ak bienveillance donc yan solution la gisaloon presse bi solution yi ma doon xaw a junj sànq rek boo hmm. boo yoree sa diplôme ba denc sa poste nga xam ni yow nag xamagoo dara nag yaa ngi door a dugg ci métier bi. Hmm. am na ma dem ba As Ndiaye xaritu man xaritu ma hmm. ma xaritu euh, kii. moo ma ko war njëkk a xam. Euh, ci temps su ma ko foos noonu laa ko foogee. boo ngi koy fàttali mi ngi koy fàttali journaliste. du diplôme ba nga téye mhm. journaliste du titre ba pare ñu naan la monsieur le ministre ba toute ta vie comme ministère mhm. boo arrêté bind maa nga arrêté wax ci rajo yi mhm. nekk nekkatoo journaliste ma dem ba mi insister ci plateau Pape Ngagne Ndiaye bi di ko wax ne moom nañ ko waa ah, dina d'accord rek ñu naan journaliste mais moom dootul journaliste depuis longtemps te wax na dëgg fi mu ne nii boo génnee CESTI yor sa diplôme nekk major de ta promotion génn ñu ko recruter si benn ministère nga dem doo journaliste ci àddina bi yëpp kayit yi euh, organiser métier journaliste mm-hmm. mi ngi ko teg ci pratique bi da nga koy pratiquer mm-hmm. bu njëkk ba ñu leeralagul woon xaw ma changé naam déet convention bu njëkk ba mm-hmm. il faut gagner soixante dix pour cent de ses revenus à travers la pratique mm. du journalisme rek mm-hmm. loolu bu fekkee yow liggéey journaliste di bind ay article di def ay reportage dem moom mooy moo lay moo lay dundal à plus de soixante dix pour cent yow journaliste nga loolu moo doon définition wu journaliste mm-hmm. nga génne ci ti wala nga génne ISIC mbaa nga génne woo fenn nga jàng ko ci rédaction yi mm. su fekkee yaa ngi exercer métier bi journaliste nga mm. boo ko exercer wul doo journaliste mm. boo arrêté moo tax tey dama am benn maal quoi ndax man dama dëkk ma retraité damay bind ay téere kii mm. bu ma xale yi bëggee présenté comme écrivain mm. ma ne dama cee lool bu ko mm. ko nekk en même temps journaliste et cetera mais yàlla baax na lees moom euh, li ñu war a retenir ci moom mooy dañu war a jox métier bi gëdd boo xam ni dina tax ñu xeeb lépp lu ñu def pour tàggat suñu bopp mm-hmm. tàggat suñu bopp ci réfléchir ci métier bi tàggat suñu bopp ci euh, nu mu tudd Euh, euh, pratique bi. Mhm. tàggat suñu bopp ci recommandation yooyu mu doon joxe. Mhm. ci la sur l'éthique et la déontologie maanaam maandu tegeek yem ci euh, yemale mhm. bëgg-bëggee yooyu yooyu yëpp su si xale yi inspiré woo dinañu am métier mu rafet. dem musul nag ba mu nekkee syndicat ba mu nekkee CORED ak yooyu yëpp musul négliger rôle bi état war a ci organiser. Euh, la profession. Mm. def loolu moom bokk na li ñu bokk manquement. Mm. état danga koy li maam la soxoon sànq ci mm. fréquenté euh, ak euh, rencontré. da nga koy sant li nga xam ni ci moom la relevé. mooy loi yi. Mm-hmm. nga dem wax ak moom ci mu yokk fii wàññi fii yemale fii waaye organiser métier bi lui-même. boo buggee yaakaar état bi defal la ko. Mhm. loolu moom suma rakk yi ci nekk ci syndicat yi ci organisation yi am interlocuteur état laa koy waxal loo ko laaj loo laaj homme politique yi am na looy compenser ak ñoom. Mhm. yëf yi dinaa dégg sama rakk Ibou Fall di ko wax. Mhm. te muy dëgg dañ koy xeex. la liberté d'expression dañ koy xeex. xeex bi nag du matt paaka. jóg di dóoree. xeex bi intelligence la gën a àndal. ka xadar intelligence maanaam euh, euh, ñor. Mm. Ah, la gën a àndal parce que état benn état amul intérêt te loolu lu may partagé dama koy wax nag mel ni damay conversé ak Mame Less. Mm. lu may lu ak moom la. benn état. Mm. amul intérêt am une presse puissante. Mhm. donc lii def sa puissance lii def sa indépendance lii def sa euh, autorité lii def nga mën a nekk quatrième pouvoir. Mm boo ko bëggee laaj le premier pouvoir du la ko jox jamais. dëgg la loolu moom xeex moo koy indi. Mm -hmm. léegi nag cadre mënoo ko dindil prérogative am mooy cadre bi cadre euh, juridique. Hmm? cadre économique institutionnel yooyu moom nga mais gis nga ay euh, l'organisation de la profession kii mooy journaliste kii du journaliste kii mooy yooyu hmm. boo si dugalee état rek dina am lu ci ay lëñ ci lëñ ci lu si nekk doo hmm. si dugalee état dina am ay ndëgg sërax gis nga profession bi ni mel nii te nga wax na nga junj ko sànq sa question bi yàqu ba ñëpp xam ne yàqu na suñuy xaar état bi réglé ko si sama gis-gisu bopp du ko réglé parce que am na lu yomboon def tey xam nga l' observateur mbaa le sud bu ku ci bindoon tey li nga gis ci internet bi. Hmm. saaga yooyu ci euh, avis des lecteurs la xaw ma hmm. clic yooyu. ñu wala tribunal suba. éditorial ñu ñu tribunal suba. Hmm. ku ko ci bindoon ci témoin quotidien machin ku ko ci bindoon tey suba ñu woola parce que euh, la loi le ainsi. lu ñu bind ci journal bi muy ay diffamation maanaam lu dul dëgg ci imputé ko nit mbaa nga ay saaga responsable journal bi mooy répondre devant les tribunaux mm-hmm. waaw léegi électronique bi lan moo ko wutale ak kayit bi. bariwul de. dara. Mm. loolu rek moo leen wutale électronique la. mais kayit la. Eh, bii nee nga journal nga yow nee journal électronique même bu fekkee nekkoo journaliste ñi la koy contesté mais yow da nga ko wóor loolu moom beneen problème la mooy li ma wax état bi mën na ñu ngi si ñu ngi de la presse bi avancé yi mu junju weddiwuma leen am na si yu bëri yu xam ne dama ne su doon man du ko dem négocier état mais am na ay avancé yu mu indi parmi avancé yooyu réglementé euh, kii bi euh, profession bi mm. euh, Bamba Kassé seen sama rakk yooyu nekk Synpics waaw pour ñu assainir profession ñu xam kan mooy journaliste accélérer le processus de distribuer la carte yooyu yëpp baax na c'est des choses mais même ñi nga xam ne tey dañu yor seen euh, chaîne soo leen la loi ne ku diffamé ñu yóbbu la wala ñu tëj sa organe mais dinañ ko wàññi bu ñu réglé woon euh, kii nu mu tuddati euh, réaction saaga yooyu. rek genn wàllu problème bi sotti parce que loolu rek moo naqari nit ñi te loolu yow mën naa régler boo nee yow mii te loolu dañ koy def man am naa site mhm. man sama site dama koy réguler saaga du ci génn mhm. surtout lu tax ñeneen ñi du leen ñu def ko war ñu contraindre leen ñu def ko mhm. man am naa sama site sama site tey boo bindee yow yónnee ci sama mail moo may def benn signal ne am na benn ma kii bu ñëw ma ma régulariser ma régulariser ma kii ko ma valider ko dama koy ubbi xool bu ma doyee ma publier ba ma doyul mu bàyyi ma fàtte ko yooyu ci ay solution la mais solution bu gën a yomb fii. Mhm. ñi yore sites yi bu ñu doon dix mille tam xam lañ leen. Mhm. xëy na trois euh, deux mille mille ñoo ci na am statut bu a considérer sax comme organe d'information. Mhm. ñi si des ñooñu ils sont hors la loi hors la loi nag ça ne de man ni de SYNPICS ni ça relève de la de de de l'État. ña des ñi xam ni ñoom am nañ droit exercer ñu appliquer leen règlement bi ku fi génnee Euh, benn auteur wala Moussa Ndiaye euh, nanga tàndarma euh, kii na mu saaga ma mbaa mu saaga keneen yow mii moom site bi la ñuy concerné yaa ko saaga hmm. donc del réguler ñu rendre obligatoire la régulation des inter, des interventions da loolu rek bu ñu ko defoon tey bari na ay intellectuels sénégalais yu ma xam te wóor na mën c'est la même chose dans d'autres pays africains yo nga xam ne bëggatuñu bind ndax suñ ko publier ci hmm. internet bi dañ leen di saaga ñoo xam ni àddina mënoon na dox ba jeex duñu dajeek ñoom hmm. duñu wax ñu tontu hmm. waaw am na benn bindkat bu mag bu ñuy wax Umberto Eco d'ailleurs eh, moom moom maam les ko moo tax ma découvrir ko yàgg na ba ko mais dama koy topp di ko déglu temps yii dafa wax ne internet dafa may ñi nga xam ne bu njëkk bu ñu toogoon ci seen place yooyu ñu na bu ñu waxee rek ñu dàq leen génne leen ci biti léegi bu prix Nobel waxee sax sañ nañ koo tontu waaw koo xam ne bu bu ñetti nit toogaan di wax bu buggee dugal làmmiñam dañ koy dàq mm-hmm. léegi mën na toog këram mm-hmm. benn prix Nobel bind ah, mu euh, am autorité euh, tontu ko loolu loolu bu ci nit mënul dara tamit mm-hmm. métier mi nag l'exercice de la profession nag loolu moom nit mën na ci dara te état bi mën na ci dara effectivement waaw nga nga jël këyit di ko bind ak nga jël internet di ko bind yëpp benn la kon doo ne journaliste laa mm. te la kon Mame ci euh, tënk naqarlu woon na ni tey euh, métier mi yàqoo euh, gis-gisam daanaka mooy lii nga ñu wax ndax déggoo woon ngeen ci lu bare bari. danañ ci waxtaan lu bëree bëree effectivement waaw Mame Less daal na ko yàlla xare àjjana. amiin amiin te aar njaboot ki mu fi bàyyi. amiin amiin. amin jërëjëf yow itam ñu lay yeesal suñu njaal di la gërëm ci disponibilité bi ak seede yi nga ñu nangoo jox ci Mame kamara Camara jubluwaay bi mm-hmm. nag mooy fexee ñi ko xamul woon xam ko waaye itam la mu làmboo woon comme ay jikko éthique ak mm-hmm. déontologie ñu fàttali ko yàlla na mm-hmm. doon luy am njariñ pour ñëpp à commencer par ñun ñi di la gërëmaat bu baax a baax doyen Pape Samba Kane di la ñaanal nga yàgg fi lool te wér yàlla yokk xam-xam bi itam ba nga gën a jariñ génération yi nga xam ne euh, ñoo nekk ci sa ron di taataan ci sa ci sa xam sa xalaat liggéey bi nga jot a ah. def ak jaar jaar bi di la ci sargal jërëjëf. amiin Fatou jërëjëf. merci Fatou jërëjëf allez à bientôt looloo nekkoon CD Pape Samba Kane moom itam di journaliste euh, nekk euh, naataango wu Mame Less Camara nekk aussi bu loolu yëpp weesoo xaritam comme ni mu ko waxee euh, ñu koy gërëm bu baax a baax di nag taataan beneen CD cette fois-ci mu bàyyee ko également ci ab doyen Ibrahima Ba. Bakhoum euh, di professeur di jàngale métier tasum xabaar kenn dootu ko présenté moom itam euh, ci Sénégal euh, ñàkkul lu mu ñu mën a wax ci Mame Less Camara ñu am mbégte lool itam taataan témoignage am doyen ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci Demb ak Tay bu spécial bi ñu jagleel suñu doyen di la ko jaale encore maam lees Camara di ñaan yàlla yërëm ko xare ko àjjana leen di sant yéen ñu invité pour ma wax ci Mame Less waaw ah, xam naa ne ma eh, li ñuy wax ne Mame ku ciy waxee danga nga ciy comp tuuti rek ndax mbir bu yaatoo hmm. te temps temps temps antenne mënut a yaatoo noonu te même bu temps te yaatoo woon tamit kenn mënut wax lépp ci yow ci Mame Less donc ci ciy jël benn wàll rek li ma ci xam hmm. euh, naam bokk ñoo bokk métier bi waaye bokkuñ promotion donc euh, ci liggéey bi dañ daje. Hmm. waaye lu jiitu loolu sax doon nañ daje ci benn kër Ndakaar kër kër xam ne ñoom ñaar ñoo nekk dooroon euh, département philosophie kooku di ko nettali fan yi hmm. Mademba Ndiaye euh, doon nañ daje kër Mademba euh, nga xam ne ji moom Souleymane Bachir Diagne ak ñeneen ñaar ñoo xam ne ji ñoom ñëpp ñu gën a bëri ñoom te fekk département philosophie lañ nekkoon ñoom. Hmm. ci boobu waxtaan yi foofu léeg-léeg fa lañ doon yendu ensuite euh, Mame Less Camara moom yi nga xam ne ñu ngi commencé def euh, sud ñi nga xam ne léegi moom la ñu woowee sud communication mm. nga xam ne moo moo juróon sud magazine sud fm euh, sud magazine sud hebdo léegi sud fm mm. euh, ci jamono yooyu benn bés damay damay si lees quoi ma ne ko may lees parce que man dama ko doon dégg ci rajo bi ma koy dégg wax boobu mm. ma xam ne kii ma am na xam-xam am na lu te ñun temps yooyu daf fekk ñu soxla woon vraiment lu mel noonu ci sud mën na ko may li l'est doo ci ñun kaay ñu bind foofu parce que nangam nangam mu ne ah yii Ibrahima yéen da ngeen di bind mënu ma ko mën ko est ce que mënu non non fekk na boobu xam naa ne comme moom xam na ne def na philosophie mokkal na ko naam mën xam am na xam-xam waaye am xam-xam benn affaire la mhm. mën a bind ni journaliste di bindee benn mbir la te moom comme rajo la def audio euh, audiovisuel mhm. léegi day jàpp ne ji daal bindin moom mën na koo te ci lim foog mhm. waaye fekk na mën na lu raw loolu xëy na dafa daf ko daf ko dafa amaguloon occasion bu mu ko wone ba yàlla dogalee mu dem ba teg ci ay at tuuti mu commencé signé ci Walfadjri fekk Walfadjri nga ñu ngi soog a ñëw mu dafa signé la chronique de Abdou Sow. Hmm. muy clinique euh, bind boo xam ne bu leer naññ ci wàllu politique surtout nga xam ne yi kii bind dafa boole woon de lenn lam foogoon ne munu ko ko foogee woon noonu wala boog daf ma ko waxee noonu moom lu ci mun a xew daal mhm. bind bi setoon na wecc leer nañ xam-xam bi moom amul sax werante mhm. mais fekk na ci jamono yi am na leen loo xam ne wane woon na ko ba noppi muy interview yi mu doon def face à face ci RTS mhm. nga xam ne moom ñëpp d'accord nañ ne ci jamono yi sax maa mos a maam la maam des Camara moo fi dàq interview yi ne ci ñi ko euh, kenn kuy def interview ci du taxawee noonu du nga xam ne moom dafa ci boole ñaari mbir. Mm. benn bi wax ji dafay leer nañ. Mm. mu xam li muy wax nga xam ne moom miy ootee. Mm. balaa muy laata oowaa ji gëstu na ko ba pare parce que loolu dafa am solo ci interview. Mm-hmm. bala ngay oo wala ngay wax oowaa mm-hmm. nit ki mu soxna si wala da nga da ngay jéem a xam kii mooy kan. boo xamee ba noppi am ci lu bëri nga seet lan nga jàpp ne boo ci waxtaanee moom. muy yokk xamuñu sénégal yi parce que ndax journaliste dañ koy doyee mooy. Mm. na fexe ba nit ñi xam. Mm. yeewu mm-hmm. gis xam jox eh, doxalinu jamono. Mm-hmm. léegi nag bu ñu waxee ne dañuy wax ci mbir sàngam. Mm-hmm. dañuy seet ka ca xam dara. wala ko ko a jege. Mhm. wala lu demee noonu moom ngay oo di ko laaj. ci biir laaj bi nga koy laaj nag tey bi muy laaj leeral bi muy laaj loolu xam-xam dëgg la te ba am des doon na ko wane. Mhm. boo demee booy bind tamit da nga ciis mu feeñ naan mu moom wax dëgg li muy xam na ko. Mhm. moo tax ma ne kon bu ko defee man am na jamono dama ko doon ooyee double lees double lees dama ci doon jub mooy. xam nga moom am na mbër bu fi doon double lees. waaye moom man li ma doon li tax ma doon koy double lees mooy mu ne na boor bi ci presse écrite maanaam mën na boor ba li ci rajo. lu mm-hmm. ko defee loolu ko ñaari boor yëpp loolu daal bokk na ci li nga xam ne mën nañ ko wax ci kanam. Mm-hmm. alors Mame Less euh, ci parcours am lan moo ci lan moo la ci gën a marqué bala ñuy ñëw peut-être ci seen relation personnelle. waaw li nga xam ne mooy ci gën a marqué mooy li ma la wax noonu maanaam kooku moom journaliste bi mais boole ko xool tamit ak li ñuy wax. Euh, Eh, éthique ak déontologie maanaam euh, maandu tegi journaliste laaj. Mm. journalisme bi maandu tegi mu laaj. Mm. moytu moytu moytu xaalis jàmbur. mooy mm. dañuy wax ne journaliste. loolu ci code de déontologie bi la bokk charte des journalistes du de da cee bokk. kenn ku dul ki lay liggéeyloo sañoo jël xaalisam saloo jël lenn loo xam daf la koy defal di la ko dimbalee ci biir sa liggéey liggéey biir sa li ngay liggéey nag boo ko déggee mooy mm. li ma mos a dégg kenn ci communicateur yi traditionnel di ko wax ci muy wax ju jub xocc mm-hmm. maanaam liggéey bi warta am leble mm-hmm. warta am fay bor mm. leble mooy ah xaaral moo kii kat bu may liggéey naa fexe ba wax lu ko neex mm-hmm. bu ma bu demee ba ba kontaan ma jaar këram mu defal ma li wala mu defal ma laa. Hmm. loolu dañ la koy aaye. Hmm. dañ lay aaye tamit ba nga liggéeyee ba noppi am ku yow daal ne ah daal li nga def ni am baax na daal di ciy jox dara. Hmm. ñaari yëpp dañ ndax kii xaar ba nga liggéey ba pare mu ñëw jox la dara. mu ngi seenu xëy na beneen yoon kon mu am fu mu la mun a jaarale. loolu bu ñaar yëpp dañ ko doon bañ. bu ko defee boo xoolee boor boobu lees amoon na ci full ji tool yi nga xam ne ji xaalis jiitalu ko ah, alalu àdduna jiitalu ko. la ko jiitaloon mooy fenn fu ma jaar fu lan laa fay bàyyi ci wàllu euh, dignité hmm. lan laa fay bàyyi ci wàllu ngor lan laa bàyyi ci wàllu xam-xam hmm. loolu rek moo ko intéressé hmm. loolu nag dafa jafe waaye ki ko am tamit am nga ndam di wane na xam ne ndam fi mu nekk nii mooy depuis boo xoolee dimanche ba te jii rajo boo fi ubbi rajo boo fi télévision boo fi ubbi journal boo fi ubbi ñu ngi wax ci moom te loolu gëj na fi ci ay euh, keneen ku fi nekkoon ci ADC gannaaw euh, yàlla ko yàlla a tamit moom Babacar Touré gëjoon na fi trop wax xam ne ji fan yi yëpp bopp nekk ni njëg jox parce que moom nekk syndicaliste maanaam am na jamono moom moo nekkoon secrétaire général Synpics maa ngi sànq sànq maa plateau ak keneen koo xam ne moom tamit eh, ñoom moom mosoon naa nekk secrétaire mhm. xam na daal lan la fa maam les def ci loolu mhm. wala ci biir ci beneen loo ci ci wàllu bi liggéey bi bul fàtte ji boobu yàggul mhm. nekkoon na li ñuy wax ci tribunal de pairs tribunal des pairs maanaam mooy li correct def ci biir CORED bi dafa am ñoo xam ne yi ñoom ñooy li ñu ooy eh, ñi nga xam ne ñooy saytu. CORED hmm. moom bu fekkee am na kenn ko am lu ko naqari. Hmm. dañuy ab journaliste moo def nangam nangam li li au lieu ko dem ci tribunal fee. Hmm. boo demee CORED ay eh, journaliste bi ay naataangoom ñoo fay nekk. ñu xam ñoo fa nekk xam métier bi boo boo wàccee yoon xam nañ ko. ni nga def ba du xam nañ ko. bu ko defee nit ki bu amee lu ko mm. boo tax mu porté plainte au lieu que mu dem ci tribunal ba xam ne moom la ñuy euh, juridiction pénale léegi mel mm-hmm. euh, tribunal de première grande instance yooyu o lieu que mu dem foofu mm-hmm. na dem fee ci correct bu ko defee ñooñu xam nga a métti journaliste mooy say naataango ñoo mm-hmm. ne li nga def ñoo xam ne nga def ñaaw ne nga def lu doon mm-hmm. looloo gën a métti tribunal fee mm-hmm. foofu tribunal condamné da ngay génn sax di bàkku mm-hmm. wala la ngay bàkkoo mooy ah man suma liggéey après ñu tere ma liberté de loolu moom du tey du démb jaadu jaaduwul jubul ci wàllu liggéey bi ñu jël ko tëj ko ci kaso bi bañ ko tëjee mu nekk star maanaam mu nekk vedette te fekk na am na loo xam ne defoon na ko lu wàcc yoon bi. Mhm. bu fekkoon ne bu fekkoon ne ay naataangoom ñoo ko àtte. ne ko lii nii. Mhm. yi nga jaar fii gën a gënoon ñu xamee ci bi ñoo ko mhm. bokkaloo de. donc Mame Less am na jamono yoo xam ne ci tribunal boobu moom da cee bokkoon. mu cee bokkee tamit nii mooy CORED dafa ci biir loi euh, texte yi CORED dafa xam ne ji. maanaam tribu nekk ci tribunal des pairs bi bu ñu defee CORED bi moom CORED boobu mooy mooy mooy mooy ni ma la ko mën daal mooy kuréel bi ëmb journaliste yëpp loolu journaliste yi ñoo ko sosal seen bopp. 2009 euh, lañ ko sos waaye xalaatin bi 2007 la tàmbali. d'accord dañuy wax ne dañu bëgg a def ordre des journalistes boo déggee ordre des journalistes mooy dafa xam ne ji nekkul ne nekk moo ci mën a dugg. Hmm. te boo ci duggee def loolu noonu dañ mën nañ dem sax ba génne la yëpp façon loolu xam ne nañ ko mën a defee mooy liggéey bi kat il faut ñu dem ba jubal ko. Hmm. ndànk ndànk ndànk ndànk ci lañ dem ba def 2009 ñu def CORED bi bu ñu defee CORED bi tamit biir loolu dem ba ci biir ñu ne léegi il faut ñu am benn ñu dañ seet ñoo xam ne ji wóolu nañ leen. Mm. ci lañ ooyee diw ak diw ak diw ak diw diw. maam des Camara bokk ci ñooñu. Mm. léegi li nga xam ne ji bon lu ma booleeg moom ci wàllu liggéey mooy ba nga xam ne jël nañ leen bañ toogandoor ñoom ñëpp Euh, fi mu nekk damay bañ ma leen di ma di ma am ci ñu ma fàtte. Mhm. waaye daal am na ci juróom yoo xam ne mën naa la ko wax léegi ñoom ñu ngi ci woon. Mhm. Euh, ku ci demee ni ki Safili ku ci demee ni ki euh, Mame des Camara mi ku ci demee ni Cheikh Tidiane Fall ku ci demee ni Saliou Traoré ak beneen soxna soo xam ne ba ma mujj am ay information ci moom mu ngi Nigéria fële CEDEAO mhm. ñooñu lañ ci defoon bu ko defee alors ci biir waxtaan wi. ba nga xamee ñëw nañ ba daje fenn nag kenn ku nekk tribunal dafa mel ni li ñuy wax ne prestation de serment da ngay mel ni da ngeen di waat ne nangam nangam bon foofu dama ci biir engagement ba ñoon jël kenn ku nekk dañ laaj lan moo tax nga dangu cee dugg nii journaliste ngeen da ko leer na nañ ak ñu ay ñoom ñëpp ñu bañ leen tànn ñu xarañ nañu. Mm-hmm. alors lees moo ñu ko def ne ah, man Ibrahima comme Ibrahima moom moom moo ma oo ne ma kay bokk ci man mun naa ci bokk maanaam boobu man la doon wax ne man maa ko ci oowoon waaye du moom ak keneen ak keneen keneen mm. am na fu ñu jaar bu tax mu wóoloo ma noonu mm. fulla ji am ci liggéey bi euh, ngor gi mu am ci liggéey bi xam bi ko xam njub gi mu ci boole loolu yëpp bu ma ko ne lees kay dugg ci dee mu ñëw nangu cee dugg mm. mooy ne kon xam na ne métier bi man comme wóolu naa ko moom it mën na ma ci awul waaye lu mel noonu rek ci gàttal mhm. moo ko bokk na ci li nga xam ne bokk na ci li ñu boole maag lees mhm. am na yeneen mbir tamit yoo xam ne ci biir soo xam ne ji suñu si biir waxtaan la mhm. buñ toogee ndooree léegi ci wàllu réew mi léegi ñu ci wàllu politique waaye nag li ëpp ci li waxtaan maag moom métier bi la ak lu yàq métier bi ak lu koy defaree. Hmm. alors lan nga dund ak moom lu la marqué benn anecdote euh, moo xam ci euh, plan personnel la wala professionnel lenn loo xam ne daal dund ngeen ko yéen ñaar euh, te mu marqué la lool ci Mame Less Camara. waaw anecdote bi moom am na ci benn boo xam ne ji nettali naa ko sànq te xam naa ne waaye waxaat la ko léegi. Hmm. nit ñi dañ jaaxle may waxu waxi. rendre hommage ku fi jógee ba pare hmm. ñu ciy ree waaye daf loolu dafa reelu hmm. moo nii rek la maanaam tax mu reelu lii maam les boo ko xamee xam ne mën na bind xam ne mën na jàng xam ne lu bëri hmm. léegi jamono yi dafa nekkoon rajo Saint-Louis nekk faak keneen ku ñu wax Alpha Abdallah Sall yàlla na ko yàlla ñoom ñaar ñëpp dum nekk nii yàlla def ñoom ñaar ñëpp nekkoon nañ secrétaire général Synpics ñoom ñaar ñëpp léegi jóge nañ fi Alpha Abdallah moo gën dem ci jamono Maam Lees moomu ko nettali parce que Maam Lees dafa am école boo xam ne dañu fay mm-hmm. journaliste mm-hmm. léegi am ba bi am dafa loo xam ne dama wax étudiants yi di def ne nangam nangam parce que bu joxee tronc commun dañuy def xam ne journaliste bind ak rajo ak télévision ñooy ñooy bokk mm-hmm. doon première année wala yu après bu paree la ñu soog a na man ci biir comme man presse écrite lay jàngale ci biir loolu may wax étudiants yi leneen lu ngeen di filmé bu leen fàtte ni bind bi am na solo loo loo mën mën nekk rajo télévision tamit day ci boole bind. Mm-hmm. alors bi ñu génnee ci yooyu lees na am benn affaire boobu mooy nettali ci mu ne jamono yooyu dañoo nekk euh, Ndar. Mm-hmm. ñoom ñaar moom mu nekk RTS Ndar kee nekk agence de presse sénégalaise mm-hmm. benn réunion bu ñu nekkoon ci wax xam ne ci affaire environnement. ci biir am benn baat boo xam ne ji ci technicien yi fa nekk experts yi. kooku def koo wax. Hmm. bon ñoom xëy na ñoom ñaar ñëpp kenn ku nekk yaa ngi dégg baat boobu ci baatu français la mais kenn ku nekk yaa ngi koy soog a dégg. biñ génnee ah, loolu alpha ah, moom ko doon déggee moom maam lees mu ne biñ génnee alfa ne ko mais lees nu ñuy bindee ornithologie <laughs> lees ne ko a ah, dégg naa ne ko waaj xaw ma nu ñu koy bindee waaye mën naa ko wax ci rajo. Hmm. xaw ma nu ñu koy bindee waaye mën naa ko wax ci rajo xam nga lu mu tekki. loolu la xam nga rajo dégg bi rek moo fa ne. la. waaye bind bi mu ngay ndax bind bi jub jubul. Mhm. fóot na fóot am na waa am mhm. foo foo war a o ndax o o o o benn araf la wala o a a u la wala <laughs> ornito ndax th wala amul loolu dafa a ah, donc alpha mu ngi soog a dégg loolu. Mhm. maam lees nga soog a dégg loolu. alpha fi nga xam ne moom moom forcé pour mu bind ko mu jub moom forcé la. lees moom na ko rek. wax rek ko itteel waaw moo ko ci intéressé lees ne nu ñu ko bindee xaw ma ko. waaye mun naa ko wax ci rajo <laughs> loolu loolu yëpp moom moom ko def ay anecdote yu mel noonu am na yeneen ak yeneen ak yeneen uh-huh. mm-hmm. lan nga jàpp ci ay jikkoom yoo xam ne xëy na tey eh, ndaw yi war nañ ci bàyyi xel parce que jubluwaay émission bi aussi lool la bu ñu fàttalee nit ki mooy kan ñu ñu ñëwaat ci ay jikkoom lim leen ba nga xam ne xëy na dana dana neex a jàpp bi euh, ci journaliste war nañoo jàpp ci lees waaw bi ci journaliste yi war a gën a jàpp surtout ndaw ñi ngay wax nii mm-hmm. gis nga li li ñaari mbir naa ko wax parce naa ko ci ñett mais baal ma jël ñaari mm. gis nga doylu. Mm-hmm. maandu am fula. Mm-hmm. bokk na ci li nga xam ne mooy caractère journaliste dëgg. Mm. doylu bi mooy lan xaalis jàmbur yi da nga koy bàyyi fee. Mm-hmm. seen parce que boo ko deful. Mm. xam nga ni ngay waree profession mooy lan métier bi ni ñu ko mën a waree yow d' nga xam lu ñu lay doyee yow xam nga fi nekk rajo bi bi lan la. xam nga yow jàppuloo ko waaye man mii am na xaalis ci sa rajo boobu. Mm-hmm. Euh, waa ji ma toog nii suma wet nii te ñu koy Abdourahmane Ndiaye am na suma moo am na xaalis ci sa rajo boobu. Mm-hmm. keneen ki nga dajal ci mbedd bi bala ngay agsi am na xaalis sa rajo boobu. Mm-hmm. ñoom daal la mooy Sénégal yi am nañ ci rajo ko nga ne ma loolu nu mu demee. rajo bi kay diwoo ko moom nga ne waa bu ko defee. du fi mu nekk nii yaa ngi jëfandikoo courant wala ah, déet. du fi mu nekk ni yaa ngi may dégg. du yaa ngi nii waa Sénégal yaa ngi ñuy déggandoor. du dégg te signal bi na nga def ba am ko lan la. Mm. du ba da nga def day ngay demande pour am fréquence bi nangam nagam. waaw ku la koy jox du ARTP ak yu mel noonu. Mm-hmm. loolu yëpp boo ko dajalee ñoo ñëpp dafa am lu tax ñu leen koy jox. Mm. courant bi am lu ci subventionné ba nga mun ko def. Mm. sécurité bi nga xam ne moom nga am ba mun a toog foofu di wax li ngay wax. te alkaati du xaw ma maanaam te te nit du ñëw fekk la foofu. Mm-hmm. alkaati di la protéger maanaam même bu fekkee alkaati xaw fa. nit ki war a def lu ñaawal wala def lu bon. bu xalaatee ne ak fii kat police mooy mën na ma jàpp. Hmm. loolu la police yi boobu état bi moo koy état ah, mooy yow keneen keneen donc hmm. loolu boo ko dajalee dana lu mu tuuti tuuti même bu fekkee benn fifteen naa fa hmm. boobu maanaam euh, am na lu mu lay jëriñ muy bu keneen bu keneen loolu bu ñu ko dajalee kon mooy fréquence yi nga xam ne ji télévision yi rajo yi am ko kon loolu muy benn bu ko defee kooku lan lay lay doy yow journaliste mooy na nga waxee ba yi xam nañ xam nañ am yeewute mhm. nañ xam lan mooy état lañ xam nañ mooy gouvernance mhm. seen alal ji nga xam ne am na kuñ ko jox ñu fal kooku ka ñu fal lan la digg woon mhm. ndax mu nga def lañ ko lam diggoon parce que tamit taxaw naa nangam mun naa nangam naa def nangam nangam koy def boo ko defee pare ndax yaa ngi alal Sénégal yaa ngi ko jaarale fi nga ko war a jaarale loolu yëpp journaliste yi moom la yoon may mu dem gëstu ko mu dem xëñcu ba xam kii kat ndax lim diggoon def na ko mu deful d'accord bu ko deful beneen affaire la Sénégal yi xam nañ ko ñu koy àtte moom waaye moom mu ngay yàq boole si la muy jël di ko luubal te waru koo luubal hmm. la muy jël di ko réeral te waru koo la muy dugal fay la muy def ay jël ay mbokkam di leen di leen di leen teral di di di di gaañ mbokki jàmbur hmm. te ñun ñëpp ñu bokk benn Sénégal loolu boo ko xoolee journaliste kon ñoo war a def loolu ñoo ko war a liggéey hmm. loolu benn ci mission bi léegi donc buñu ne bul nangu jël alal jàmbur ci sa biir liggéey maandute googu maam lees amoon na ko muy benn beneen bi mooy lan xam ne ji ngor ci boppam bu fekkee da nga dem ba ñàkk ko ci biir liggéey bi mm. ka la jox tey xaalis ndax da ko da nga ko tiital ndax am na lu ñuy wax chantage ci biir mm. chantage mooy bu ma ah boobu waaw yow kat man boobu deful nangam xam naa loolu defan boobu ma joxul dara ma def nangam mm. loolu yow boo ko defee yaa ngi woor Sénégalais yi parce que woor Sénégalais mooy kee lam def jubul te alali réew mi moom dañ ko ko dénk ndax fii buñ naaj dañ ko wax di ko waxaat mm-hmm. li dalee président ba kenn ki ki ñu jàpp ci maanaam ci waru bindin ki ñu jàpp ne moo gën a suufi ci agent de l'État yi mhm. ñooñu ñëpp suñuy surga lañ di dale ci kaw la xam ci mhm. président ba ci suuf dëgg la suñuy surga lañ mhm. sa surga nag bu nekkee ci biir kër gi ngeen ñu dajaloo seen alal ne ko defal ñu jël suñu suñu mbaalu sécurité teg ci loxoom ne ko na kër gi seetul ñu léegi bu fekkee ne dem na ba mu yàgg moom mu am fu mu jaar yow dox la dara di yàq te nga bañ koo wax ne parce que daf laa jox dara. Mm. booba yaa ngi war profession bi. parce que profession bi nekkul ne ñëpp ku nekk sañ def nekkul ne ku nekk sañ dem uti xibaar. Mm. nekkul ne ku sañ nekk sañ taxaw ci rajo bi wax li ngay wax. Mm. donc loolu mooy liggéeyu journaliste. maam lees boobu bu xamoon na ko jàngale na ko wane na ko. kon loolu bokk na ci li nga xam ne xale yi buñ ko toppee. bàyyi fi tur bu rafet. moo gën bàyyi fi immeuble yoo xam ne léeg-léeg bu demee mu yàgg mu daanu. Mm-hmm. wala kay doon wax ne ji nga bàyyi fi doom yoo xam ne dina dina ñemee bàkkoo waajuram. Mm-hmm. bu ñu waxee ñu yow nga nekk ñu benn bi ñu ne ah kii doomi diw la. xam nga kii doomi diw la doomi diw la mm-hmm. rek kii la yow loolu fexe sag boobu. nga fexe yow defal ko say doom. Mhm. defal ko say sët defal ko say xarit defal ko say mbokk. très am na solo waaye bu boobaa nag. bu mhm. boobaa nag doo bokk ci ñu yore mi taxawaalu. Mhm. xëy loolu la mos naa ko wax benn bu yàggul rek ci benn télévision dama ne leen di jàngal ci déontologie di leen ko waxee ni ma leen koy waxee loolu wax naa ko étudiant ba tàyyee. defee li ma leen exactement. ni ma leen ko waxee ngeen di ko def fari mm. ci ni médias yi mel nekk nii précarité bi ci nekk dooyu ak euh, yenn jafe-jafe yi ñu am. Mm. boo ko toppee exactement am ci salaire ki lay liggéey donc am fii. Mm. donc du ngeen a oto de. waaye nag bu ngeen génnee fu ngeen ñu respecté leen. dëgg la boobu nag yéen ñii naay seet a. waaw yow yaay tànn teel a <laughs> waaw yaay tànn teel a am oto bi. ak eh, foo romb ci benn bi xanaa du diw ciw. wala ñu ne ah waaw kii de waaye bu ne diw mooy di. du salarié bu nangu ko la mm, yërëm nag mm, mm. kenn doo yërëm lees kenn doon na ko gis ko yërëm non non non mais am na fulla ju nii kenn du ko dégg ci yu yi kenn du ko teew yu ñàkk fay de def la muy def loolaa waral way na macha allah way wi rafet na ko nag mu am ay opinion mm-hmm. di ko défendre fa mu ko a défendre mm-hmm. waaye lenn loo xam ne ji na ci ay ay yu xaw ma ko ci les Camara très bien jërëjëf bu rafet boobu la ñuy jeexalee waxtaan wi gërëm la gërëm aussi doyen Pape Samba kan mi ñu jëkk taataan ay seedeem ci Mame Less Camara dellu di leen ko jaal te di ko ñaanal yàlla yërëm ko xare ko àjjana a baax merci beaucoup kon mbokk yi fii la ñuy yem ci seen émission démb ak di leen gërëm ci déglu bi gërëm euh, Diawo Diallo Léon Paul Mendy ñu nekkoon ci jàppandal gi fa Fatou Thiam Ngom la woon ci kàddu gi euh, di leen dig daje beneen dimanche incha allah waxtaanee leneen ak keneen ñu yendoog jàmm incha allah leneen ak keneen ñu yendoog jàmm incha allah leneen ak keneen ñu